que bokk na ni ah, rapport yi ba tey mii ngi wéy di daal di li nga xam ne que moo di épinglé kenn koo xam ni itam ah euh, ñu ne mujjee nañ ko épinglé mooy euh, ministre.

mu daal di am ay euh, euh, mu daal di déduire allant dans ce sens ne daal di yegg si itam Euh, c'est la sortie du juge d'Em. waaye itam ñëw itam si Madiambal Diagne euh, complicité bi nga xam ni itam mu souligné entre le président Diomaye Faye ak ki nga xam ne que le président euh, Macky Sall autant de questions yi n'a xam ni itam fas yéene ko daal di faram-fàcce te seen émission li nga xam ne que moo di midi fa daal di waxtaane li que ak aussi la situation actuellement des daal ñëw itam si li comme dit rapporté que rapport yi surtout bu li nga xam ne que moo parce que aussi dafa daal di frayer exactement la chronique si temps bi yëpp jëmale si wàllu mais alors Pape Donc elle a commencé tout commencer tout d'abord ak li nga xam ne que mu di rapport yi ah euh, hein, euh, yuuxu dina jógee peut-être fu nga ko foogeewul parce que aussi euh, lu nu mel décision bu le, la décision bu courageuse le, quoi qu'on puisse dire Bassirou jël ko allant dans ce sens daal di damantale yenn si ay rapports, mu neen xaar ay quoi qu'on puisse dire ñoo xam ne peut-être fare neen si kaw li nga xam ne que gouvernement bi et tant d'autres et tant d'autres waaw comme ni nga waxee sànq rek boo dee xool peut être yuuxu dina jub fuñ ko fogeewul ndax euh, ba xoolee basir Diomaye Faye moo mm. demandé woon pour ñu publier rapport yi te ak léegi nag euh, cour des comptes ak nag ñu ngi publier li nga xam se ne moo di rapport yi ñi ngi xam ñu bëri ñu ngi leen ci épingle euh, te yaakaar naa mu nekk loo xamante ne tamit sénégalais yi bëgg nañ ko bëgg nañ ko xam bëgg nañ mu leer et puis ndax buñ la duñ la dénk alalu réew mi après nga yor ko nu la neexee rek après tamit nag ñu ne duñ ko saytu il faut ñu saytu ko xool nan ak nan nga yore yore woon alalu réew mi ak fan ak fan nga ko dugal moo tax euh, rapport yi daal euh, euh, peut-être mën naa ne dina am betteel ñu bëree bëri ndax bu ñu demee ba ca biir a biir tam da ngay déggaat yeneen tur yoo xamante ne nii doo doo ko sax foogee mm. ci laale nañ wala taqe nañ ci li nga xamante ne moo di alalu askan bi. Mm. alors donc mi ngi exactement par rapport ak boobu dañuy xam ne moo di décision bi nga xam ni le président euh, jël na ko allant dans sens ni daal di war a mën rapport yi nga xam ni itam 2019 2020 2021 jàpp li nga xam ne moo di 2023 lépp daal di war a mën a nekk si li nga xam ne moo espace public bi donc jàpp ni itam lu yees aussi am na si ndax dinañ daal ñëw itam si la dernière décision justement bi nga xam ni itam of na jël di bañ a révélé waat li nga xam ne moo di tur yi daal di war a mën a gàddiloo euh, nit ñi une présomption d'innocence manam dina xam ni itam tudd len leen pour éviter di fi dal di wara meuna mën euh, euh, jaxaso donc fum tolni nak bokk ci spectateurs yi ma leen une yéen de émission dina nga xamné que modi euh, au Midi Info fils sur les antennes de Sénégal 5 TV exactement alors rapport yi ak ni muy daal di demee ak aussi li nga xamné que modi révélation yi ba si déballage yi être un ba si li nga xamné que modi justement révélation des cafards alors coup des comptes mu dal ñuy jox lu daal toll nga que modi 93 pages sib tënk xool na si nga dossiers bi nga xam ni mi ngi table ki n'a que

plutôt mu daal di war a leer si bopp askan wi exactement parce que instant bi dama jàpp ni combat bi dafa jógee si Sonko ak Mame Mbaye Niang dem si Prodac ak peuple bi Euh, c'est-à-dire donc peuple bi tay ñoo daal di jëñok tay ak li nga xam ne que moo di Prodac peuple bi di représenté Sonko product di représenté ki nga xam ne que moo di Mame donc je pense que euh, li nga xam ne que moo di Cour des comptes rapport am c'était important daal koy war a mën a bàyyi xel bu baax a baax benn itam mooy li nga xam ne rek moo di miru Mamour Diallo ak 94 milliards yi euh, suite ak cette plainte bi nga xam ne donc Ousmane Sonko quand on se rappelle biraloon na ko ni li nga xam ne que moo di avril 2018 autant de questions yi nga xam ne itam tey war nañ ko daal di war a mën a leeral allant dans sens tay combat bi tay euh, jàppoo ni peut-être euh, dafa changer dem si askan wi ak li nga xamné ko modi di Prodac. waaw waaw parce que combat bo dee xol changer na camp parce que bu hmm. njëkk au début man nañ ne Mame ak Ousmane Sonko la woon au début bim koy euh, wax naan euh, dafa luubal kat vingt neuf milliards ci lii di Prodac bañ naan ko na indi li nga xam se ne moo di euh, euh, kii dossier yi koy justifié jamono jooju nag ma jàppoon ne même Sonko bu génnoon dossier yi koy justifié tamit du tere dañ doon nañ ko toppee recel de document administratifs mais nag euh, li nga xam comme li nga wax sànq rek euh, léegi combat bi dépassé na personne Ousmane Sonko léegi mi ngi léegi combat bi euh, Prodac ak peuple bi la léegi peuple bi ñoo bëgg a xam yorin bi nga xam si ne Mame Mbaye Niang yore woon na ko Prodac ak luubal yi nga xam ne. tudd nañ ko ci marché yi nga xamante ne jot a yegg yenn financement yi euh, comme ni nga ko waxee woon tamit euh, demeewat ko ci euh, Mamour Diallo ci quatre-vingt-quatorze milliards yi parce que Ousmane Sonko di wax mm. tey jii nag nga xam se moo di cour Sonko am na dëgg ci kaw ki nga xam se moo nekkoon Mamour Diallo boo dee yooyu noonu yëpp li taxoon parce que bi nga xam ne moo fi nekkoon en mm. place ñoom da doon protéger ñi nga xam seen ay alliés lañ mm. te au début boo faale wala lu waay dina la traîner à justice ding ko leeral mais à la fin bo xolé ñom mo doon projeté ki nga xam si modi moo di Niang mm. ba Mame Mbaye Niang sax di laaj nan indemnité nan nañ ko fay li nga xam si modi 200 mm, millions pour après mu naan da koy euh, jox euh, doomi daara yi quelque chose comme ça mm. euh, mais nak comme fii ñu toll ni peuple sénégalais mo soxla li nga xam se ni mo moo manam maanaam li nga xam moy dossier yi nga xam nga xam se modi procureur tek na ko ci table ki nga xam moo di Bassirou Diomaye Faye président son excellence nak nag euh, son excellence nag moom la ñuy xaar mu def liggéeyam mu def liggéeyam maanaam ne liggéey bi nekkul ne ay maanaam day fayantoo mais li nga xam se ne dañ la dénkoon na nga ko doxalee ak fi nga ko dugal ak li nga ko dépensé lépp na jaar yoon ndax euh, boo xoolee rapport yi ñi ciy tudd ñëpp bari na ba jamono ji sax léegi li nga xam se moo di euh, Cour des comptes léegi dafa jël décision ne maanaam léegi euh, ne pour sàngu sutura wala peut-être peut-être mën ko bañ jàppee sax sàngu sutura ah. <laughs> mais boo xasee ba luubal xaalis sénégalais tey moom suturaalul sa bopp moom jamono ji voilà sutura moom jeex na fi mm. eh, comme xëy moo jël décision boobu tamit euh, peut-être euh, mënu ci lenn lu dul nangul ko ko ah. mais nag euh, peuple Sénégal mom li xaar moy na mm. alors na affaire yi daal di leer moom daal curseur un peu si que ki que alors euh, peut-être hein, euh, <laughs>

donc Malin Fatali euh, projet bi dañ ko daldi tégon pour daldi tabaxul daldi tollu ci nga xamné que modi 40 dak alors su né dak nak autant que pour moi ñu euh, défal li xamné que modi euh, 10 euh, dak su né moy domaine agricole communautaire product li ko taxoon jóg si wàllu agriculture si wàllu mbay mi euh, agricole c'était important le mm-hmm. début parce que euh, ñi programme exactement ce projet digganteeg li nga xam que Modi 2014 japp li nga xam que Modi 2018 mm-hmm. euh, si bobu dina xam que Modi projet nak en tout après ñu démarrer ko 2018 pour mu dal di mëna jeex si li nga xam que Modi 2021 euh, suñuy xool si début bi euh, projet bi lu daal toll si nga xam ne que moo di cent milliards suñu ay koppar. téeméeri milliards mm. suñu ay koppar. Euh, mm. moo waroon teg li nga xam ne que moo di projet bi. Mm, suñuy xool su pare woon ba lépp tënk li nga xam ni itam projet bi waroon na ko daal di war a mën a def. toll na si nga xam ne que moo di trois mille ay emploi maanaam. ñàkkub xëy bi xanaa day jeex. ndax trois cent mille trois emploi projet bi waroon na ko daal di war a mën a amal waaye euh, aussi euh, la réalisation de 2000 unités autonomes d'exploitation madame, euh, suñ ko amoon amane ni soxlaatuñu ñuy indil dara fii si parce que lépp dafay daal di am